bi jammin xusna alkitaab wa adxilan jamaana daara salaam salaamualeykum mbokki jullit yi gannaaw bañ sante yàlla julli si sangu sangi wi waral bis bi seydul awwaliin kull anbiyaahi wal mursaliin zimaamul wara di ñaanal xalifatul am li taarixatil muridiya sëriñ Muntaxa ibnu Cheikh Madul Bachir yàlla na ko fi yàlla yàggal te ay cëram waaye di ñaanal sama kilifa ga ma bàyyi ca Louga di xalifa Ahmadul Mokhtar Cheikh Ahmadul Kabir Mbay di ay seex Yuusufa Mbay yal na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ay cëram waaye di ko ñaanal sëriñ Mbay si abdu mi nga xam si nii moo nekk ci bopp xilaaf ak El ila axri ila axri mboolem ku ŋànk ngir yi yal na nga fi yàgg te ak mboolem say taalibe ak umma islam bépp bu loolu jàllee guddi gi doy waa guddug Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taggkat yi ku ne wax nga ko ni ko sama maam ji doon waxee ñoom alaaji Malick Maodo yal nañu ko yàlla dolli leer ñoom Kaab ibnu Zubayri ñoom Hassan ibnu Sabit Cheikh Abdou Khadi Jilani Cheikh Ahmad Tijani Ghazali Yaddali Daymani Ibrahima Dasuqi Muhyiddin ibnu Arab ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ku nekk am na loo xam si nii wéet ngaak sama borom tagg ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wax ci ay wax yoo xam si nii amul kenn kenn kenn kenn ko ma sa wax ci taqwa ak maarif buñ jëlee ci bëri ku ci mel ni Kaab ibnu Zubayri nga xam se ni ci taggat rasulullaay mag yàlla bokkoon ba ñoom Cheikh Ahmadou Bamba ñëwagul ci zahir Kaab ibnu Zubayri nee nañu ci taarix tagg na rasulillahi di ko tagg di ko tagg di ko tagg di ko tagg ba loxo nday jooram bi nga xam si ni moom la doon taggee rasulillahi dafa wadd ci suuf ñu jëlaat keneen ku ñuy wax Hassan ibnu Sabit Hassan ibnu Sabit tagg na rasulillahi di ko tagg di ko tagg ba bët yi muy taggee muuru ñu ne ñaar ñooñu kii bi mu taggee rasulaay ba loxo bi wadd kii tagg rasulaay ba ba bali muuru ku nekk dañoo jël garaat takkal la wutal la màndarga boo xam se ni tagg nga sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye sunu jàmbaar ji Cheikh Ahmadou Bamba Khadimal Moustapha nee na keroog ba may tagg rasulillahi bi ma koy tagg Kaab ibnu Zubayr moom nga xam si ni yàlla defal na ko garaax ak Hassan ibnu Saad bi ma nee bërët ñoom ñaar dama leen a taxañ jéggi leen daal di jàll ñu ne ko bindal mu ne raditu anil baaqi wa an xayri xalqihi wa fi mathi jaawastu kahban wa hasana ki nga xam moo waral juróom-ñeenti fan yi burdu Cheikh Mouhamadul Boucher nga xam se ni tarixa yu bari ci moom la ñu jëlee tagg burdu ñu ne bu yowmal qiyaamee taggkat Rasulullaay dañuy def sàppe ñu jiital Cheikh Mouhamadul Boucheyri jox ko garab bu nuy wax raaya mu yëkkati ko ca kaw naan man mii maa dàq tagg Rasulullaay sallallahu alayhi wa sallam ku sopp Seydina bi ne def nii màgg ko ca kaw ju gis waaye sëñ Bamba bàyyi bas ak baaraam maam yi dana xariloo maam sëñ mu Muntaxa nee na su ma nee bëreet sama xasida yi benn bayitu muqaddimatul am daa su jibee cheikh mamadul busiri danaan xërraaye ba sànni ñu ne ko ku koy far mu ne man ñu ne ko bindal mu ne asahba rasulillahi inni qaddimuhu muhibban lakum fillahi wala yaqulu ñu ne ko loolu nu mu ne nekkee mu ne man sëñ bamba ba may tàgg tàgg rasulullahi suñ borom sax gu dara ñu ne ko bindal mu ne mulkil anil bail qadim jaal ni asna xadim li man lahu fadd yadun wasaana ni fii xidda bi ñu jëlaat ku ñuy wax shérif abibulaay mu ne góor yàlla yi bi ñuy tag rasulilaay ñoom ñëpp dañoo def ku nekk dar sa bunt di tag rasulilaay shérif abibulaay nee na ku ñuy wax cheikh abdou xaadir jilaani sultaanul awliya moo nekkoon première ci baabi tawaat buntu toroxlu ñu ne ko bindal mu ne tiftu بهزيلة الأولياء فإذا بكل ولي دخل من بابها شيخ عبد القادر الجيلاني دخل من باب التواضع وشيخ عبد الخبر بامبا xasila fi xasiratu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na sëriñ bàmba nee na bi mu nee bërit daj buntu xeeb ko di wër làkk bi di tagg rasulillahi naan ces xalimaam naan ko wowoo yow sumtuhu fikrun wa mantiquhu zikrun wa xitmuhu shukrun ala minnani walqalbu muqtaribun waljuudu munsakibun fi lfardi wassunnani ya sayidi ya rasulillahi ya sanadi inni ilallahi xaddut min damen ku sopp Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimal Mustafa ne def ni màggal ko gis Sëriñ Bamba nee na may tagg rasulillahi rasulillahi jàkkaarloo man mu may xool ma di ko xool ma naan ko samsu sunuusi yaay jantu jant yi rasu ruusi yow yaay njiitu njiit yu xayrul anis yaay ngën gi wéttal li law jëm ca nit yàlla ya sëriñ Bamba nee na ma gën a namm sama xalima naan ko xat xaasa fahra min ina asra ci guddug la ñaan nga bil jismi jahra yow képp yaa na jahran suñ borom bi def tiraay mu ne ko lakka xawaarix yaa di boroomi xar baax min zil xalaix yu jóge ci suñ borom lay sax li saabix ñu ñëwagut duñ ko am waaye walaa ji jaay ñu ñëkk jëkk duñ ko am muy tagg rasulillahi di ko tagg ba rasulillahi jàkkaarloog moom yëkkati di ko jox sëriñ Bamba gën a namm xalimaam nan ko wax wa yow ak mal lu waraa yow yaay ngën ngi mi ndeef xalqan wa xulqan zahra ku mel na yow dootu wàcc waaye dootu am wa mislu xatlam yulaa walam yulaa fi séemi ahmaduna rahmatuna hamiduna farhatuna ku sopp sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne def ni màggalo ca ma gis na may tagg Rasulaay Rasulaay na bërit jàkkaarloo man mu naan ko kaana yazullu amaam yow rek yaay gis sa gannaaw te doo gersu yaraa wa raa wa amaam say pegg da koy gis waaye wa aynuhu sa bët bi kaanat tamaam day dem fu sori waaye wa qalbu xol bi lam yadama du nelaw Serigne Bamba nee na may tagg Rasulaay xoolalam ca jàngale dana rasulaay képp moom dong ci guddeem gi képp ku jël lu toll lépp dërëm nga def ko ci bu yow mel xiyaamee yaa ngi mel ne ku tey woon xare ba dar ak xare xunay ni ñu ne ko bindal mu ne fa kullu man anfaqa fi mawlidi musarrafi maalan bi xayri sarrafi walaw bi xadri dirham fa innahu ka man xadar yowma xunayni wa sabar wa yowma badrin wa nasar xayral waraa mu fahami fa man yuazibu mawlida nabiyina babil huda fala yuxaasibu xadan fa kullu man qad qadara mawlida aflidul wara mubashiran muazziman bi shukrin aw laham sëriñ Tuubaa nee may tagg rasulilaay di ko tagg di ko tagg ba rasulilaay jekki-jekki yëkkati lu bëri tonni naan ma am jëlal di yëkkati di jox sëñ Bamba nee na may tagg sulaay mu yëkkati di ma di ma jox jekki-jekki tourné amatul lu ma jox mu jekki-jekki daan na ko kaay ma yóbbu la suñ borom yow Cheikh Ahmadou Bamba benn waaye na ma yow da ngay daanu rek man ko soo demee ci jës bul xulub page 17 Serigne Bamba moo ne huwa moom rasulillahi lazim lazim tadat yaddi ci sama loxo bii la jàpp waaye bii moom li rabbi ba sama borom af yat yi ba ca loxo sama borom wa jaadali bil jëy di ma jàkkaarloo sama borom min xayri mu jël lëgën xaj wa mi jox ma suñ Bamba nee na bi ma demee ba jàkkaarloog suñ borom damay tagg rasulillahi di ko tagg di ko tagg di ko tagg di ko tagg ba suñ borom ne ma léegi la ma rasulillahi ne ma la ma amoon lépp jox naa la ko yóbbu naa la suñ borom nee na ma jàkkaarloog suñ borom di ko tagg di ko tagg ba suñu borom ne ma fépp nit yàlla wat na jaar léegi bàyyil ma ubbi la bunt yëpp fu la neex dugal boo demee ci xasida gën a wax eg fi nii da nga ko ja fekk ñu ne ko bindal mu ne fatahtali kulla baabin kunta fatihu lil awliyaaka yaa fatahu yallaahu nee na muy tagg at rasulullaay suñ borom di ko tagg di ko tagg suñ borom ne ko kumpa ba fam yam muril naa la ko ngir tagg yi ngay tagg sama sang bi sayyidina Muhammad sama alayhi ñu ne ko bindal mu ne allamtani al-ghayb hatta sirtu muntahiban anta al-alim allazi allamta yàlla nee na may tagg rasulullaay di ko tagg di taggaat di ko ko tagg di ko ko tagg suñ borom ne ma léegi fii di mulk ak malakut mooy zahir bi ak badal bi amatoo fi intermédiaire léegi fu la neex dugal ñu ne ko bindal mu ne yaa malikal mulki lii wa saxta duuna jawwan fil mulki wal malakuti dahra yàllaaw waaye ana ñu sopp Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimal Mustafa na ne bi màggal ko ma gis sëriñ ma nee na ma koy taggaat di tagg suñ borom suñ borom na ma léegi adduna ak alaaxira may borom moomale naa la ko yow Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimal Mustafa ñu ne ko bindal mu ne malaka nii dunya wa oxra samat maa indahu lixtaaru Muhammad nee na may taggaat suñ borom. di ko tagg di ko tagg suñ borom ne ma man si suñ borom man mi nga xam si ni maay borom jaam di borom jàkke yi nii jaamoo man suñ borom moo moomale naa la ko ñu ne ko bindal mu ne mallëkk nil maaliku kullu jaami wa kullu masjid min mi jaami nee na may taggaat suñ borom di ko tagg di ko tagg di ko tagg ba suñ borom ne ma man mii di borom nguur gi jëlal nguur gi yëpp ma mool la ko ñu ne ko bindal mu ne mallëkk nil maliku wal maliku wal maaliku allazi lahu tamliku ajran kabiran wa jaza wal wa'du li fi ramadana na jaza ku sopp Cheikh Ahmadou Bamba Khadimal Moustapha da def ni màggal ko te ko ma gis sëñ bambaay bindu de nee na may taggaat suñ borom di ko tagg ba suñ borom ne ma man suñ borom may borom lépp waaye jëlal ma may la lépp ñu ne ko bindal mu ne ah tey te nii jamii aduna salabin wali taqudu soxla waxta talabi sëriñ Bamba nee na may taggaat suñu borom ba di ko tagg di ko tagg ba suñu borom ne ma lépp loo xam se nii mooy lu jëm ci lépp yow yaay borom te fegal naa la lor yu jëm ci doomu aadama yi ñu ne ko bindal mu ne jaawastu naas dama jéggi nit ñi wamaa fii ay di naas ci sama loxo bi ilaa rabbi naas ma dem ba ci borom nit ñi fan la maa wasaltu ilaa rabbi naas bi ma àggee ba ci borom nit ñi mu ne ma ahtaanii nafa naas moomale naa leen nit ñëpp wa kafaanii mu fegal ma durra naas sëriñ Bamba ne la may tagg rasulillahi ba suñ borom ne ma tagg yi ngay tagg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faxasal naa la faatu yow faatawtoo ñu ne ko bindal mu ne xasabta mawti tayyibil hayaati bi xurmatil abibi zil ayaat xoolal sëriñ Bamba keroog bi mu nekkee ca karam ba sab nee na ba ma nekk ci keram ba sam toog naa di tagg rasulilaay di ko tagg ba encre ji muy cappee di tagg rasulilaay jekki-jekki jeex sëriñ Bamba nee na ma a bërët jóg toogaat sama xel dem ci rasulilaay ma xam ne bëgg gi ma bëgg Seydina Ahmed jërut mooy jóg dem jekki-jekki jël xalama gi capp ci yaram wi deret ji sotti mu capp ci daal di naan ko dam mii sama dari téeram jëlal summa ahli ñi ma àndal jëlal wa awlaadi samay doom jëlal al fidaawloo def naa lépp addiyee rasulullaay abdan qadiman muskaana li sanada mu ne ko far naa cofel yépp ndax yow rasulullaay maxat mahabatil muxtaar sayiduna xubbul maaniya wal ahliina wal walada rajawtu ci lii laa yaakaare fi xidmatil maahi jëf jii ma la jëfal ona tay gadan ëllëg jazlan ak pay man gu màgg ya jurru ñu toftal ta al amnu sécurité war na daa di xéewal moo tax ma ne cas sama xalima ne bismillahi ma way Cheikh Bamba mi xëy jëfal ñëpp eskay borom taal bu dul fay ku sopp Serigne Bamba Xaadimul Mustafaa ne def ni màggal ko wa borom taal bu dul fay Serigne Cheikh Issa jenn borom Touba kii jaayanteeg rabana moo doon nu Moustapha kii mooy ki fi nekkoon mbër ma ñu sonaloon ñu boolee woon kay noonu muy muñ suba ngoon yóbbu nan galwaa jàllale karam ba saa yóbbu maayom baa mu mucc ci balaa dem na tund jeewal fay xéewal ñëw ma di neexal billaahi damay leeral waaye jaar na ndakaaru noonu yëpp di sóoru ñu yóbbu kaaru taxut mu weeru ñu jalax ko ndar ngir bëgg kaa lor mu gën a war a wel Cheikh Bamba mooy gor sëriñ Bamba Xaadimal Mustafaa moo wax lii ñu ne ko yow nooy taggee Rasulullaay mu ne man sëriñ Tuubaa sama tagg Rasulullaay aw ma ci sago dama koy tagg ba dugg biir àjjana man zanna ni anna xayra xadimal Mustafa fa inna ni axdimuhu bi Mustafa waaye axdimuhu ila duxulil janna sëriñ Bamba nee na bi ma nekkee Maayomba toog naa ci suufu garab gi di tagg rasulullah yi di ko tagg ba suñ borom ne ma mbooleem bakkaar yow ma sa am effacé naa ko ñu ne ko bindal mu ne madaxtuhu mathan la daa maa yumba maa uyube wa kaff zanba nee na ma toogaat ci suufu garab gi di tagg rasulilaay ci weeru koor ban ne allahuma laka sumt wa bika amantu wa ala ris aftaxt faxfir lii maa xaddamtu wa maa axadru sëriñ baa ma nee na mën a bërét teen gis ay xob yi ne ma rocc ko muuc si ndox mi ndax lan nee na romb xeer yi waaye keroog la ma suñ borom jël xéewal yi woo matal ma ko ca maayom ba ñu ne ko bindal mu ne saaxali xayrillahu fii maa yumba ma saa xalbiya waxlal la ba sëriñ ma nee na ma dugg ci biir géej di tagg rasulilaay ba suñ borom mi alxafuur kii jéggale ñëw ba sama nopp bi ne ma bis naka tey jéggal naa la say bàkkaar te taqale naa la ak ñu ne ko bindal mu ne li rabbin xafuurin yàlla miy jéggale xat maa an ya zanba effacé na ma samay bàkkaar wa an nii man nafa mu taqaleel ma iblis iblis fii baxru maa yomba ca géeju maa yomba ga ilaahi sama borom nag umhu daan may fompal xëy lii samay ay kulluhu yëpp wak fi nii mu fegal ma al asa lor wak fi nii mu fegal ma al ahda noon wa naara safara wa sabaaku njaam sëriñ bamba xaalimal mustafa nee na ma delluwaat ca Libreville ba ma toogee laata may dem Libreville tagg ya ma tagg rasulilaay suñ borom ne ma ku dul yow lot na ci wàlliw bu ne ñu ne ko bindal mu ne madaxtu qablu la daa libérooli mattanuanaa an misluhu kullu wali sëriñ Bamba nee na may tagg rasulilaay di ko tagg ba tubaab ba di ko xool xam ne kii ku bëgg rasulilaay la mu jékki-jékki di ko xool xam ne kii ku bëgg kafe la nee na mu yow mu isneeni bisub tey tubaab bi jël kafe gi xóoyal ci poson bi ñëw ba ci wat sëriñ Bamba ne ko jekk kaas bi daan ne laa ilaha illallah sëriñ Tuubaa ne ko Muhammad Rasulullaay mu ne ko kooku du tudd moo la jox kaas bi ki moo bëgg Rasulullaay ko sopp sëriñ Bamba Xaadimal Mustafa ne def ni màggal ko ma gis sëriñ Bamba nee na mën a bi dam bay naan jibril wàcc ci néeg bi ne ma suñ borom nee na boo ko naanee ay loro ci nekk mu ne suñ borom so mu ne jibril boo demee suñ borom ne ko xam naa ko waaye kin ci tudd dama ko jar daan ne ces kaas ba naan ko ba mu jeex ne ces xalimaam ne wallaahu suñ borom yan suru nii xéwal gi ma defal wal xalq mindeef yi tabbaxu nii di ma ci topp fil baxri ci géej gi wal barri ak jéeri ji saa na fi njariñ te bilaa dara ni amul la kookoy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimal ba saj dana xari nee na lépp ñu ne ko lu waral loolu mu ne man Serigne Bamba Xaadimal Mustafa bëgg gi ma bëgg Rasulullaay fi ma ko toll damaa jaral lu ne nafsi bakkanam la ko jox wa diini suma ahli wa maskani ak sama dëkk walwalat ak sama doom lépp lakkawu di amul abad lépp mu jox ko Rasulullaay sallallahu alayhi wa sallam lépp mu tuddee ko lu waral loolu mu ne man Serigne Bamba kafa doyloo na allahu yàlla kulli sama lépp kulla maalam yuhibbu nii lépp lu ma bëgg bi raqin ci lu kawe ala kullal wara nee na bàyyiwuma kenn afdali ali man maa ko gënal ñëpp ñu ne ko lu waral loolu mu ne suñ borom moo jël dundam ak sama dund man sañ Bamba jaxase ko muy génn dund ba ajal damm xayaati li xayaatillaahi allahu daahili jinaalillahi bala nga xam ne Sëriñ Bamba kenn du moom keroog bi mu déparé ci gaar bi ci Louga keroog la taalif xasida googu ñu naan tu man yaxsinuni min ad-darar min kulli seytaan wa min al-jinni wal bashar nee na keroog bi mu nee dem dem tundu jeewal jàkkaarloog iblis iblis jàkkaarloog man ma di ko xool mu di ma xool sëriñ bamba nee na ma ne ko tey jii nga xam ne may sëñ mbamba iblis na ko tey jii nga xam ne maay iblis sëriñ bamba jër aaya ba nekk ca suudal Israël muy inna ibadihi laysa laka alayhim sultaan am na dëgg-dëgg jaam yoo xam se ni seytaane mënu leen dara moom la nuyoo Iblis ne ko auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wa qad ayassahu minni bila tati say an minu ala sayin minni abadan inna ibadihi laysa laka alayhim sultan alif ga daanu mu ne ko ay yasamin laaw inda jeewali iblisa isna daytu bi yaa wali nun ga daanu mu ne ko nafaali xayri laaw xabli fi ndari bi ahli badril usri gadari geneen nun ga daanu mu ne ko nafaali xayri laaw fi ndakaaru kul asan li jarxul makaaru aynin ga daanu mu ne ko an la man rahman fi safina bi annani xadimu zil madina baa ga daanu mu ne ko barraani laaw la daa kunakiri min kulli jaalibin ilal manakiri yaa ga daanu mu ne ko yasaril muna la daari wal wali man xaada lii maa xaaba xan kulli wali ku sopp Serigne Bamba xaadimal Moustapha da defee màggal ko gis nee na ma jàkkaarloo moom ba ca nuun ga mu ne ko naajey duhu de yaare naa bisaa na sunu suñu borom yaa wali kafay tëni fegal na ma iblis iblis ñu ne ko foo ko teg mu ne ces xalimaam daal di waat ne billahi maa ngi gij suñu borom faaraxtu taqli ko naa nasaara nasaara jeewal yi waxayri xat xan binaa tanaaw li Sëriñ Bamba nee na keroog bi mu ne bëri jublu Ndakaaru nee na damaa jàkkaaroog métti bi waaye nee na bëgg gi ma bëgg Rasulullaay moo tax ma fàtte métti bi ñu ne ko bindal mu ne ilaa nabi wajaxtu fi Ndakaaru zikran bihi xat kut bi kal ñu ne ko ah mu ne boo xalaatee Sëriñ Bamba demoon na ba ne man sëñ Bamba koo xam si dëkk nga Dakar yaa ngi mel ne ku dëkk safara ndax métti di ko suñu borom tegoon foofu ñu ne ko bindal mu ne man sakana fii Dakar saara fii ëhli naari ñu ne ko ak ban mu ne lépp looy xalaat ci xeeti métti nag suñu borom teg na ko ci guddi Dakar ñu ne ko bindal mu ne nafaali xayrillahu fi ndakaaru kulla asan lii jarrahul makaaru mu dem ba ci sàgg ne su ma xale may yëtt guddi yi du ma bëgg lu mu jël xeet jàkkaaru tubaab jihaad ak moom wetli ko yàlla ba dama yomba kereeg la Seex Bamba fanaan banaana dellu si kanaa kiri durus xaraana kew xee ba wey li mer weli wax ma ma àggale tuuti ngir yàlla ngir jëmmi sëñ Tuubaa yàlla la sëriñ fay waaye dama bëgg sëriñ Tuubaa bu ñu ko waxee daanu lépp lu ñuy wax ci sëriñ Touba nan koy teg ci mbind ku daanu yaa xam ku daanuwul yaa xam ndax Serigne Bamba dene karaamati xattu yaddi ndax xasida Serigne Touba yi nga gis sëriñ Serigne ma ne nii ngeen orné seen bopp bu yomal xiyamee noonu la ñuy orné sama xasida yi ñu ne ko bindal mu ne kitaabati tadduuru taxta al ars bayna al kiraami abidi zil fars ma nga ci xasida gu nuy wax albaraka